Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu fas yéene tàmbali téere bi muy matnul ajurumiya euh, kii Mouhamad ibnu Mouhamad Daoud moom moo ko bind léegi téere bi nag euh, daanaka am na chara mooy commentaire charx mooy beneen téere boobu mooy gën a leeral li ñu expliqué ci biir téere bi ndax dangay gis benn paragraphe bu ndaw fii moom da koy wax waaye paragraphe boobu ndekete day bëri détails yoo xamante ne mënoon nañ ko xam te ñàkk koo xam euh, du du gën ndax soo ko xamee rek soo ko xamulee rek da ngay traîner rek ñu bëri te léegi euh, pour éviter li ñu loolu moo tax beneen boroom xam-xam bu ñuy wax Mouhamad Mouhidine Abdul Hamid moom it dafa bind beneen téere bu tudd euh, tuxfatu saniya bi charxil muqaddimatil ajurumiya pour leeral baat yi naan la kii soo gisee mu wax la lii lii ak lii la la bëgg a wax lii ak lii la la bëgg a wax ci lii ne la exemple ngi nii bu ko defee nga gën ko mën a euh, comprendre loolu moo waral chara bi kon su ko defee téere bi soo koy jàng da koy jàng ak téere beneen bële mooy euh, tuxfatu saniya léegi ñu tàmbali paragraphe bu njëkk bi nga xam day définir ci définition yi lay wax mu ne alkalaamu bi maanaa ab baat lan mooy kalaam lan mooy baat wala lan mooy wax wax xam nga suñu waxee rek lettre ñëw na ah euh, lettre su ay lettre suñu dajee rek moo am na moo mooy benn baat ay moo yu bëri suñu amee phrase ñëw na wala bokk expression kon alkalaamu arab su ko waxee mooy baat rek mooy wax ab wax wax ji nag la mooy lan mu ne huwa lafzul murakkabul mufiidu bil wadi mu ne mooy wax joo xamante ni dañ koy wax ñu koy dégg te muy bàyyeekoo ci làmmiñ mu al murakkabu loo am dañ ko toggale ah al mufiidu loo xam dafa am eh, njëriñ bil wadd ci làkkub arab wa aqsaamuhu salaasatun mu ne wax lan mooy ay pàccam mu ne ñett pàcc la mu ne ci biir wax diñ ci gis lii nii ma la bëgg a wax diñ ci gis li ñuy wax ismu mooy lisim wolof lisim la koy woowee wa fealoon diñ ci gis lu ñuy wax verbe moom mooy fealu mooy jëf wa xarfun jaa li maanan euh, diñ ci gis lu ñuy wax xaraf xaraf mooy particule ci français boo xam day ñëw indi indi dégg-dégg ci biir wax jooju indi sens yaa ngi dégg mu ne fal ismu yu arafu bil xafdi wa tanwin mu ne ismu nag mooy lisim suñ ko waxee mu ne naka lañ koy xàmmeewee ñu ngi xàmmeewee ismu yu arafu bil xafdi ñu ngi koy xàmmeewee ak lu ñuy wax xaf xafad xafad mooy lan mooy xara euh, xarakawu jar su duggee ci baat baat ah muhammadin in boobu noonu tanwin la mooy le doublement de la kasara mu ah muhammadun un tanwin la mooy le doublement de xam ma dan tanwin la doublement de la fatxa matérialisée par deux barrettes waaye avec un alif jàngoon nañ ko ci cours bu njëkk euh, bi ñu jàngoon ci lecture kon mu ne lisim soo gisee màndargay tanwin wala nga gis màndargay xafad ah euh, màndargay xafat mooy euh, lépp loo xamante ne dañ ko kasara rek moo am benn yoon la wala ñaari yoon muy tanwin mu ne xamal ne loolu lisim la mooy tur yaa ngi dégg mu ne kon tur dinañ ko xamee ci xafat ak tanwin mu ne dinañ xamee it tur wa duxuuli alif wa laam dinañ xamee tur tamit ci duggab alif ak laam alif ak laam su duggee ci baat rek mooy al mooy article jàngoon nañ ko mu loolu it dinañ ci xamee tur wa xurufil xaf di waxiya mu ne xuruful xaf xafat yi nag baat yi nga xamante ne su ñëwee day waral euh, baat boobu wala lettre boobu ñu jar ko mooy ñu def ci baret bu ndaw ci si suuf mooy ñu masque masque yettu yettu suuf mu ne waxiya xuruf yooyu mooy yii ma la bëgg a wax min ci la bokk wa ilaa ilaa ci la bokk wa an ak an su waxee waa mooy ak ak alaa ak fii ak rubba ak ba al baa u mooy baatu lettre ba ak kaaf moo tax mu ne wa wal kaaf mu ne baat yi soo leen gisee ah walaamun ak laam soo leen gisee ñu jiitu benn baat rek mooy que baat boobu noonu dañ koy kasara ci suuf mooy baat boobu fin bi dañ koy kasara di leen ci ñëw après ak ay exemples yu bëri ak ay exercices incha allah mu ne wa xuruuful xasami wa hiya mu ne waaye tamit euh, di nga gis tamit lu ñu wax xuruuful xasam mooy baatu ngiñ ngiñ yi baatu ngiñ yi lan la yan baat la. mu ne al waawu mooy baatu waaw lettre waaw wal baawu mu ne lettre baa ah mooy xara xarafu baa comme ah ak wattaa ak xarafu taa mu ne lii danga koy gis ci kalaam mu ne wal fi'lu yoon rafu bi xadd mu ne nag léegi dinga gis foofu non nii lañuy xàmmewee non wax na ko ni mu ne di fa gis tamit verbe mooy jëf ah. verbe yaa ngi dégg mu ne wal feelu nag fi'lu mooy verbe nag mooy yoorafu bi xat ñu ngi koy xàmmeewee ak xat boo xam ne da koy jiitu baatu xadd xaaf ak daal suñu jiitee ji jiitoo rek dañuy xam ne loolu verbe la was siini dinañ xam dinañ ko xàmmee tamit ak siin ah, siin su ji jiitoo ah, dañ koy xam yaa ngi dégg baat bi dañuy xam ne baat boobu verbe la kon baatu verbe su dee xat moo ko jiitu wala siin siin kon lu ci mën a tege rek dañuy jàpp ne kon lii verb la li ci bëri lii màndarga la bokk hmm? mooy màndarga de base bi ñuy xàmmewee verbe ba mu des turu nit hmm? wala yenn tur yi am na tur yoo mën a tàmbalee siin fekk firiwul ne baat boobu verbe la waaye baat bi tuur lay doon yaa ngi dégg lisim lay doon mais lii nag mooy màndarga yi nga xamante ne mënul ñàkk mu ne it wataa wataayi taanis saakina mu ne ak taawu taanis saakina bi ñuy wax taawu taanis saakina mooy taawu jigéenal taawu jigéen saakina bu dal boobu it tamit ñu ne dinañ ko xàmmeewee tamit verbe mais taawu tanis tamit loolu dinañ ci ñëw saakina dinañ ci ñëw ci exemple wax leen mooy lan ak firéem bu mu bu gën a xóot wa wa wal wal xarfu mu ne tamit di nga gis ci biir kalaam baat parole expression wala wax dina am verbe mën naa am no mën na am verbe waaye mën na am xaraf xaraf xarf xarfu mooy benn particule mooy benn affaire boobu du du tur du verbe mu ne xarfu mooy lan maa laa yasluhu maawu loo xam du ko du yéwén maawu mu ànd ak moom dalilul ismi euh, tegtalu tur wala dalilul fi'li ak teg wala tegtalu euh, jëf mooy verbe yaa ngi dégg mu ne tegtalu tur su ci nekkul wala tegtalu verbe su ci nekkul rek nga xam ne ne kon euh, du du loolu mooy xaraf kon xaraf xarfu daal mooy soo gisul mandarga yu tur ci moom gisoo mandarga yu euh, verbe ci moom kon xamal ne xaraf la ndax lu mu la jàngal sànq mu ne la verbe siin lañ koy xamee ak xad su gisoo fa siin gisoo fa xad nee na la ismu niñ koy xamee mu ngi ne le ah, alif ak laam lay lay lay lay ñëwee mën na ñëwee xalifa wala xuruful xafat wala yu mel noonu ah te xam nga xaraf du tàmbalee du mel noonu mu ne kon nga jàpp ne loolu mooy xaraf yaa ngi dégg kon ci gàttal lii mooy présentation wu chapitre bi euh, bu ndaw bi bu mu njëkk a def ci définition yi waaye chapitre bi chara bi dina ko def quinze pages à peu près yoo xamante ne euh, quinze pages yooyu yëpp dalay jàngal benn par benn li muy wax fii ak lan mooy maanaay waaw ah, benn par benn baat yi dina da gën a xuusal te di nga gis ne ne nag ndakatee jàng ko moo gën ñàkk koo jàng wa ma zalika alallaahi bi aziz yàlla nañ ko yàlla xamal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh